bi mooy ancien stock bi booba bu ñu seetee am na ñeenti junni carte ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yoo xam te ñoo fay desoon retiré nañ ci 137 téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar mu des actuellement ñeenti junni carte ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari carte yu des bon bu ñu seetee maintenant am na yeneen carte yu bees mooy yi nga xamante ne ñaaw ñu inscriroon daaw carte yi commencé génn ci biir loolu donc am nañu 5000 493 euh, cartes c'est-à-dire que juróomi junni carte ak ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci biir loolu donc joxe nañu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett actuellement mu des donc 5365 juróomi junni carte ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi carte ñu des donc actuellement mooy li nga xamante ne alors moom mooy li fi nekk comme stock ci carte yi ñu war a ñu war a jël donc il faut dire que donc boo seetee donc le taux est très faible